juróom-benn. yi nga xamante ne dañ ko jagleel. ci xeex lépp loo xamante ne mooy noot fa gaagal wala euh, teg loo xamante ne dafa diis jigéen ñi ak ndaw ji jigéen ñi ci àddina. ñu koy wax ci tubaab 16 jours d'activisme mi nga xamante ne fépp ci àddina chaque année dañ koy def juróom-ñaar ak juróom jur ñaar fukk ak juróom ci weeru novembre ba fukki fan ci weeru décembre. ñu koy commencé si journée bi ñuy wax journée pour l'élimination des violences envers les femmes léegi suñu partenaire mooy association des femmes diplômées des universités bi ñu oowee pour ñu jàppale leen pour ñëw fii ci université Cheikh Ahmadou Bamba euh, partners investir mobiliser aussi ay nitam ñëw accompagner leen parce que partners mission mooy assister les organisations de la société civile et dañu gëm ne que tey pour assister organisation de la société civile yi pour euh, jàmb am fépp ci àddina bi euh, éducation surtout éducation religieuse donc daf ci am solo donc université Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamante ne léppam ci base bi éducation religieuse la ñu ñëw njëkkee ko fii ñun suñu première activité ñu ubbee ko fii après ñu war a dem tamit euh, Kaolack incha allah léegi ak aussi femme takk der yi police ak gendarmerie aussi dañu war a dem ci ñoom parce xam ne ne que ñooñu ñëpp bu ñu boolee seen i doole donc euh, li nga xamante ne moom la ñuy wër ci àddina bi dinañ ko am ñu ngi rafetlu euh, intervention yi naam ñëw nañ ak ah, ñaari consultant yi def ay présentation waaye gis ngeen université bi dañu démarrer seen benn ndaw bu góor mu ñaan après ñu jox ku jigéen mu wax ñu xalaatam ba sax nee na dañu war a ñaan Sénégal dem ba am njiit bu jigéen loolu xale bu ko wax rek xale bu war a am jom la ñu xam ne que donc fii xale yi ni ngi leen jàngalee ah am na modèle boo xamante ne fii nii waxuma la biir Sénégal sax mais Afrique ci boppam war nañ ko tasaare parce que modèle bi tax war na tax ñu mun a xeex terrorisme ñuy wax moon na tax aussi immigration clandestine bi ñuy xeex tamit ñu xeex ko loolu lañ fi jàngal mais boo xoolee son excellence Serigne Mamor Mbacke bu mu Murtada li mu tëjee lépp lépp lépp ci l'islam lépp lépp l'islam l'islam dafa yemale dafa jiital sax jigéen parce que dem na ba wax nekk ci l'islam li ñuy mayee soxna sax fu mu basé mooy ci diine di ndax yeneen yëpp la ba pare li ci gën a intéressant def na différence entre culture ak religion parce que euh, xamal nañ ne que xale yi ñu daan yónnee ñu dem sax euh, ba yeneen dëkk yu mel ni Égypte jàngi bi ñu ñëwee sax am nañ ay changement li ñu gis ci moom donc léegi mu jël ay université yoo xam ne dañu dem fekk ndaw yi fu ñu nekk comme ni ko ñeneen waxee éviter leen dépaysement ñu jàngal leen yar leen jàngal leen seen diine suñuy culture je pense que loolu mooy jàngat boo xam ne jëlee nañ ko fi te loo xamante ne war nañ ko promouvoir donc moo tax ñun vraiment association beex bàjjenu gox yeex ñëpp ñu ànd ak fii vraiment jàng nañ fi jàng boo xamante ne ñun tamit dinañ waxaat tamit nekk modèle bi waxuma la Sénégal comme la ndax partenaire Ouest Africa day liggéey fépp ñuy làkk nasaraan français ci Afrique de l'Ouest modèle boo xam ne war nañ ko promouvoir boo gisee suñu consultante yi euh, statistiques yi ñu partage te statistiques yi nga xamante ne ay enquête euh, démographique du Sénégal moo ko génn moo wane ne que région yi nga xamante ne maanaam Diourbel Louga Saint-Louis région yi nga xam ne dañ leen xamee religion dañ leen xamee diine mooy région yi nga xamante ne fitnaal jigéen fa la gën a néew donc loolu ñun daf ñu dëkkul ci li nga xamante ne ñun dañ ko doon théoriser moo tax tamit lu excellence Mame Mor wax dafa important fii culte université du savoir la laboratoire la boo xam ne loo xam ne xalaat nañ ko fi dañ ko fi war a ñëw à un petit échantillon testé ko bu ko testé nag bu dee baax na jox na ay résultats yoo xam ne c'est probant ñu wasaare ko et donc statistiques yooyu ax ah, ñun li ñu fekk fii war tax na dëggal nañu déjà li ñu xalaatoon ne que problème mu éducation ak éducation religieuse moo am ba président de la république sax da doon wax dañu war a delloo si nit ñi éducation civique benn instant mais man dama doon wax sax ne que morale dañ ko ci war a delloo donc dëggal na ne que loolu dëgg la ñu delloo waat suñuy valeur ndax bàjjenu gox yi ñu ngi doon oo ba parce que bàjjen mooy lan bàjjen mooy papa sa papa bu fi nekkul bàjjen jigéen la nga wéeru ci moom donc yooyu yëpp suñuy valeur la ak ndeyu daara yi yooyu yëpp ay valeur yoo xamante ne lan moo ko lal muy religion bi donc religion bi ak suñu culture je pense que modèle boobu bu ñu ko promouvoir xëy na ci lii tax Sénégal am par rapport à yeneen pays yi ci la bokk loolu tamit loo xam ne jàng nañ ko fi te tamit ñëw bi ñu fi ñëw tax na pour ñun dëgg dëggal dëggal na ko